tey jii di àllarba juróom-ñetti fan ci weeru mai dëppoog ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru kori ñu yegg leen xabaar bi ñeel diggante Cheikh Yérim Seck ak capitaine Seydina Omar Touré dogalub àtte ba kon daal dinay daanu. capitaine Seydina Omar Touré moo xam xamle xabaar bi wax ne kon ginnaaw at ak weer ak ñaar fukki fan ak benn ci eh, yoo xam ne diire na ko procédure diffamation bi doxoon sama diggante ak Cheikh Yérim Seck mbir mi kon daal dinay mujjee jeex ndax kat. Cheikh Yérim Seck mii daa am ay kaddu yu mu yëkkati woon tegoon ko ci kàttan Seydina Ahmad Tirmidhi kon mu yóbbu woon ko ci yoon kon euh, première instance kon daal nañu condamné ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck mbir mi nag kon ni mu demee moom kàttan Seydina Ahmad Tirmidhi kon di leeral ne wax ne daal ginnaaw lu war a mat fukki yoon ak benn muy euh, demande renvoi ngir nag am jafe-jafe lool indi preuve ci lim ma tuumaal kon dogal ba àtte ba juróom benn weer. yoo xam ne sursis lay doon maam bu ko doon ci kaso bi dañ ko daal di daan waaye itam war maa fay lu toll ci juróomi million franc CFA yoo xam ne kon dafay nekk dommages et intérêts di loo xam ne nag su ko fayul euh, li ñuy wax contrainte par corps mën na ci am maanaam daal kon ñaari ko yóbbu ci kaso bi ba kor ma koy fay. moo tax nag kon ma bëgg leen a leeral ci euh, message bi yéen opinion nationale international daal ne am naa volonté topp mbir mi ba mu sës li ma ko nag mooy ngir boo lëggatee képp koo xam ne da ngay wax. nga bàyyi xel ci li ngay wax fexe ba mu am ci ay preuve leer daal dama bëgg mu nekk leçon ci ëllëg képp koo xam ne da yëkk yëkkatee kàddu ko teg ci nit ngir yàq ab nga fexe ba la ngay wax daal mu nekk lu leer waaye nit toog fee rek wax lu la neex ci ab citoyen ngir yàq ab deram loolu daal jàpp na rafetul loolu moo taxoon bu ko toog bu mu sëttalu ci dala ginnaaw benn yoon wax na itam daal ne itam mi ngi euh, jégleel mention spéciale ki nga xam ne moo di maître Moussa Sarr ak bi nga xam ne gratuitement la ñu ko doon jàppale di ko ci mbir mi di ko ci itam conseiller lu war a toll ci ah ñetti at ñu nekk di ko jàppale ci mbir mi kon daal ci gàttal jàppale leen Cheikh Yérim Seck condamné nañ ko juróom benn weer yuñ dul tëdd war a fay juróomi millions yoo xam ne nag ca cappaandaw ga su ko fayul mën nañ ko ci yóbbu kaso ba ko rob mu koy fay